baax na. jërë ngeen jëf mbokk ñi suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi people 221 di nuyu suñu kilifa di nuyu suñu kilifa euh, di dalal ki nga xamante ne nag kenn dootu ko présenté ci réseaux sociaux yi saf na ci sàpp ah, mu di ndiku ndis mu njool mi ki nga xamante ne tax tey vraiment ñëw na wax lu bari loo xamante ne da doon nëbb ci milieu. parce que c'est la première fois ñu gis tey benn jigéen buy taxaw di dénoncer li nga xam ne moo nekk ci milieu yi donc euh, yàlla nekkaloon ko ci ba tey ko ci yàlla jëlee moom lañ fa yéene seqal waxtaan Ndiss mi dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. waa salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu guy gi yen ñi ma seet si waa people 221. Mhm. di leen nuyu di leen sant di nuyu sa caméraman bu ñaaw bi nga àndal moom daan xaw a nuroog sax Ndiss mu njool mi ndax njool mu coofe mi la njool mi yàlla sàq la waaw. di nuyu àdduna yëpp di nuyu askan bi yëpp. Mhm. di nuyu waat waa milieu di leen gën a nuyu fu ma toog dama leen nuyu. Mhm. waaw d'accord euh, Ndickou souvent say wax dañuy dégg ngay wax millier milieu milieu tey dama bëgg nga décortiquer ma lan mooy milieu en fait. waaw milieu tey dafa bëri façon ndax tey buñ déggee nit day dem milieu rek ñi ne dafa bon dafa yàqu wala day jaay boppam mais du loolu milieu ku nekk ak li la fa yóbbu. ñii dañuy dem pour lijjanti seen bopp jaay seen bopp maanaam ci anam boo xam ni tegginu dayo am ñoo xam ne dañuy ñëw pour naan si boire am ñoo xam dañuy ñëw pour ambiance déglu musique bi am ñoo xam dañ fay ñëw comme li rencontrer discuter dara dem seen yoon mais ku ko dégg rek dafa tënk maanaam daal lu bëri mais ku ko dégg rek danga naan waaw kuy dem millier rek dafa yàq baaxut jigéen bu yàqu nga fekk ne du loolu milieu lan lay def ci nit waaw ça dépend ku nekk ak lim lay def da ngay gis nit tey toog ba ci yàgg këram bu dem benn bar resto wala mu dem benn baar daal di dem toog ndax animation bi musique ba fa dijj bi di teg da koy neex am ñoo xam ne tamit retrouvaille lañ koy def tey yow di nga gis xamante nit ci milieu yàlla def mu tàcc la ubbi say porte say xéewal wala connaissance bi di daw wala link bi di daw milieu mun na lu nekk waaw ci maanaam ni ma ko mën a béréfiner. Mm-hmm. tey lan nga ñu mën a jàngal ci milieu loo xamante ni tey euh, gis nga nit mu dund ko loo xamante ni dalay leer ni kii dama ne dafa bonoon mais baaxoon na benn avant tey comme yow mi nga xam ne yaa ngi ci nekkoon du ñàkk yoo xam ne dina ñëw di la expliquer problème am lii moo tax ma dugg ci tey lan nga ñu mën a expliquer loo xamante ni tey nit dund ko ci milieu wala looloo ko dugal ci milieu en fait. waaw parce que tey man saa su ne li may wax dama naan du ma wax ci côté góor ci côté jigéen laa que jigéen laa. ba pare am loo xam ni man dama ko dund dama ko vécu am loo xam ni tamit dama ko fekke tey nit dugg na ci milieu di jox seen waa kër dépense di daw ndax ay njabootam tey nit bàyyi na dëkkuwaayam jóge comme village wala fenn tàggu ay parents ne leen day liggéey day daan si doole dakaar te pourtant milieu ci milieu bi la nekk parent mi li may wax duñu xam nan lay amee bu événement jotee mu jënd saaku pombiteer saaku soble jënd ay boisson ba mu rafet car macha dem yóbbul yaayam te yaayam xamul nu mu koy lijjantee wala fu mu koy jëlee waaw. am ñoo xam ni tamit nit fekk na leen ci million. toog waxtaan ak ñoom ne lan moo la dugal ci lii nga wax ko mu ne la pare nga pour sëy nga ko waaw mu takk la te ba tey ñoo ngi toog di sëy ñaata nit tey milieu bi fii ñu am jëkkër di sëy te tey jigéen bi ñuy taqee ci milieu man di ko boog li ma gis ñoo dàq sëy parce que xam lan moo tax xam nañ ñu neex xam nañ ñu naqari liñ naan ceebu dëj ak ceebu ngénte mooyam boo daq boo dank diw bi day siit parce que ñoom dañuy tàmm souffrir tàmm galère tàmm parfois xonet toog duñu am suba duñu ñaax kon kooku jigéen bi nga taqee tey ci milieu bi bu sëy toog muñal la moom la neex. Mm-hmm. parce que dund na lu nekk ci biir millier bi. Mm-hmm. Mm-hmm. foofu noonu yaa ngi wax ni am na ñoo xam ne dañuy jógee village ñëw Dakar di liggéey foofu noonu nga yaakaar euh, parents yi tamit amuñu fa part de responsabilité. waaw parce que parent tamit parent rek la tey sa doom bu diree valise ne la damay dem Dakaaru daani doole. nga jàpp ne sa doom a ngi liggéey. xamoon nu muy amee heure boo ko woowee mu décorosé la yaay lii wala yaay laa. moom tam mu toog lii laa soxla sama téléphone daa yàqu wala kër gi lii wëg lii ceeb bi wala diwlin bi mhm. nga ne ko demal ci bitigu village bi mu jox la temps naa la dugale lii sa yaay xamul dara parce que yow danga kaa fen mhm. waxoo ko dëgg bi mhm. vérité absolue li ngay dund Dakar waxoo ko ko mhm. sàqamtuma biir dakaar bi sax ñu nekk mhm. am na ñoo xam ne tey seen yaay yaa seen kër yi bu ñu xëyee lan lañ leen gëmloo salon la ñuy liggéey wala benn cosmétique lañ ma jël wala benn place buy jaay tisi ay 19 heures laay wàcc fa laay xëy fekk ne ñoo ngi ci meuble yi di job annonce dajale seen i 15 téléphone téléphones yi di rëkk ñu jël ay mineur ñu leen di joobal di liggéey ñu leen di fay ay journée dugg lan mooy job lan job annonce loolu gouvernement Sénégal sax dàqooru ko mooy maanaam day am ñoo xam ne dañuy toog yor seen ordinateur nga fay leen jënd say téléphone simple moo tax milieu dafa bëri ay façon ak ku nekk ak ni koy dundee ak ku nekk anam ba ngay jaayee sa bopp mhm. nga jënd say piisu piisu téléphone jox ko nit am ku ko ajal ñu bind ci ordinateur bi site internet da ngay def ay massage fekk ne yow jàngoo massage doo esthéticien amu kayitu massage nga nax nit ki nit ki sélectionné sa numéro woo la exemple comme tey par exemple mu ne ma allo ma décorosé mu ne ma dangay def massage ma dëgër fit ne ko waaw mu ne ma sa cabine fu mu nekk massage plus wala massage man massage simple ma ne ko maa ngi Ouest foir wala maa ngi cité kër góor gi wala maa ngi cité Damel nga ñëw ba foofu may la defuma lii fii lii wa fi am am na tey loolu ñoo ngi ciy defeere ñoo ngi ciy defeere ñoo ngi ciy defeere ay xale yu jigéen yu bëri ñoo ngi ciy defeere ay xale yu jigéen yu bëri après ñooñu tey seeni mbokk bu ñu yëgee ni jàpp nañ leen fekk ne dem nañ ba sës seeni mbokk yëg ni jàpp nañ leen seeni mbokk yëg ni jàpp nañ leen wala nga woo sa copain ne dañ maa téye fen sa copain sa copain laaj na la lan lañ ma téye nga fen ko naan ko c'est-à-dire mais dangay dem taxaw sa jour jugement sa copain ñëw yëg ni dañ laa jàpp ci meuble lañ la fekk lii wëg lii nga doon job léegi tegoo sa famille gàcce national tegoo sa copain gàcce national sa entourage tegoo leen gàcce nationale dëgg voilà accord millier am na xaalis. nit tey géem na ci millier ba jënd kër nit géem na ci millier tey ba tukki nit géem na ci nit millier man am naa ñu ma xam ñoo xam tey millier dañ cee bokk seeni i ubbi seeni i bitigu prêt à porter am ñoo xam ni tukki nañ ci. parce que xam lan moo tax guy gi dañoo gëm seen bopp ne sama objectif comme tey man pere naa booy dund million naa ci am benn bien wala naa ci am lii daw génn li may wax saa ne ñun jigéen laay waxal million kenn du ko ñiddi million kenn du ko ñiddi da ngay màgg yor benn âge bi suba xale yi xale yi xale yi gën a ñëw xale yi vingt ans yi xale yi quinze ans yi xale yi di gën a ñëw parfois da gis sa moroom yaay million parfois nga gis xale bu ndaw bu am dix-huit ans romb la sa xol bi di jeex ngay foog ni yow xale yi mineur yee la ko teg man ministre de la jeunesse laay waxal. non dinaa ñëw foofu noonu xam naa dinaa ñëw foofu noonu. Mm. Euh, tey lan moo la dugaloon ci milieu nga nga tënkal ma ci lu gàtt rek lan moo la ci dugal ay xarit wala ay àndandoo. wax fa yàlla dara dugaluma ci milieu aw ma benn région comme mel ne damay jox samay parents wala damay jox sama yaay man ay xarit laa doon àndal ay xarit laa doon àndal di topp ambiance milieu. di toog soulagement bi ànd ak ay xarit jab bi toog fii xam rek nante yeeg yooyu bëggee happiness man amul boobu moo ma ci dugal. d'accord wax dëgg fa yàlla. d'accord lan moo te li may wax maa ngi nii télé eh, écran laa toog moom ma tiim may wax. Mhm. site internet moom ma tiim may wax. Mhm. du réewande suñu waa kër waxuñu ma indil dund waxuñu ma indil ceeb waxuñu ma del jënd duuli waxuñu ma del lii musuma joxe dépense du ma fen suñu kër bu añ jotee damay yor lekk ba suur. Mhm. wax dëgg fa yàlla. Mhm. lan moo la ci génne. waaw parce que tey boo xoolee moo xam ni du yoon lenn kese la. Mhm. à travers TikTok réseaux sociaux dañoo ne réseaux sociaux day yàq. mais am na ñoo xam ne day defar. man boog ci man boog de ma part personnelle. ma defar tax tamit alir bu ma doon daw ma wàññi ko bu baax. parce tey dem naa am naa ñu ma fi gën a siiw sax ndax nit kese laa dem naa ba bu ma génnee nit topp ma laxasuma di jooy bu ma toogee sax milieu wala ma toog benn baar nit fekk ma fa yow yaay ndiku yow laay seen ci tiktok bi sama fans nga kottu ma yooyu ay nit di ma ko def maintes fois mu daw ma xam ne man moomatuma sama jëmm mel ne xoolal ñuy jooy ndax man mm-hmm. comme am na ñu ma bëgg te tey kooku bëgg ma ba gis ma bërëb bi ma fekk mm-hmm. suba day dem toog seen koñ waxtaan ak nit nendi ko sama fans bi te koy gis ci TikTok mhm. démb fekkoon naa ko baar bee wala démb fekkoon naa ko boîte be mhm. kon man sama bopp il faut ma jël ko ma sangu ko ba mu set raxas lu mhm. tilim ma teg ne xam ni léegi lu bëri waratuma ñin ñaa ngi may bàyyi xel parfois ma bokk ak nit kalaandoo ngena ma changer lii wala bàyyi lii ma xam ni ku ma bëgg moo may wax dëgg loolu looloo tax ma bàyyi lu bëri xam ni guddi giñ toll jot na ma ne au million d'accord tey lan tey lan nga ci dund loo xamante ne nii yaa ngi toog yow personnellement di ko regretter. wax dëgg fa yàlla xam nga loolu kañ lay am loo xam ne dund mm-hmm. naa ko mu metti may toog di ko regretter bu doon dama mës a amal nit problème milieu wala ñu xeex wala ñu jamante mais wax dëgg fa yàlla dund naa milieu ba nii ma toogee bàyyi yàlla nañ ma tàggee sama yaay aw ma dara lu ma ci metti musuma dugg ci règlement de compte bu jàmbur musuma dugg ci ay affaire kalan wala ma jël butéel dóor nit wala ma jam nit te damay sant yàlla li may wax saa su ne nit ki boo ko xamul bul ko jugé doo ko jugé li may wax ne man musuma am problème ñu ma defeere musuma fanaan violon te am naa xarit yoo xam ne tey maa ngi ànd ak ñoom ñii tëdd ji nañ dem camp génn ci ay jigéen ñi am ay mandat dépôt mais man damay sant yàlla te yàlla na yeex comme loolu lépp dund naa ko ba sama jëmm jii ñu foo bëri foogoon sama jëmm jii tëdd naa kaso mos naa def li ndax samay terme ak samay langage mhm. te loolu musut am dama ci gën a sant yàlla mhm. di ko ak xale góor yi des fois du ñàkk vraiment mool nga ah nañ ko wax des fois xale góor yi nii nga xam ne dañuy bëgg a ñëw toxaan la des fois yooyu noonu doo ci xaw a am jafe nit ñi di xaw a ragal yooyu naan noo kii wala nga toog mu leer la ne kiikat bëgg na ma soxna mais am na lu muy sóoraale ci man waaw loolu day am parfois nit yëkkati téléphone am ne ma damaa am sam benn càmmiñ ak laa bëgg mais nee na daf laa xaw a ragal <laughs> dëgg la bien sûr. Mhm. daf laa xaw a ragal. ma ne ko lu may ragalee nit laa am ñoo xam ne tamit dañuy may bëgg am ñoo xam ne dañuy wër bëgg palmarès ak buzz bu ndi ko digalee naaxu vidéo TikTok nga téléchargé ko téléphone ne wóor bi maa koy jàpp maa koy kepp mm-hmm. sama alal la sama ndiis la maa koy jël lu neex mm-hmm. te yàlla xam ne ni di ko xamu la d' accord waaw tey ma ñëw ci li nga xamante ne nag mooy cëppaandaw li mm. euh, mu mel ni keroog maa ngi la dégg ngay expliqué ni man am na ay jigéen yoo xamante ni ñu ngi ci ñu ngi ci jeel bi may déggante ak ñoom mu metti ma trop euh, ñu gis tamit ministre de la jeunesse ni muy jàppalee ndaw yi nekk ci prison yi muy góor ñi tey foofu noonu du ñàkk benn message boo xam ne di ko lancé wax ak ki ne mooy ministre de la mu déglu la waa ministre de la jeunesse li ma koy wax gis naa acte bu muy def ak geste bi jigéen ñi nekk ci kaso bi dañ leen a war a jàppale ñoom premièrement di leen defal ay don di leen gës comme ni muy jàppalee góor ñi fëll kaso nii ba ñibbisee di wax seen doléance man tey li ma def guy gi yombut am na jigéen ñi bàyyi milieu toog kenn déggu leen mais man damaa jóg pour volontaire jàppale sama moroomu jigéen yi nga xam ne ñoo ngi ci milieu tey li ma def kan moo am fitu def ko kan moo capable def ko nekkut ay du dara de mais ministre de la jeunesse dafa war a jeeg gestu jigéen ñi nekk ci milieu bi da leen a war a gëstu am na ay xale yu ndaw am ñoo xam ne jàng nañ ba yor seeni i diplôme mhm. kenn bonut xale yu fàttu parfois liñ naan mbaam wéq na doom ji waaye bañu ko mhm. ñu bëri buñ la waxee situation lu leen dugal ci milieu te ñun ay jigéen lañ dañ ñoo war a gëstu man maay sël jigéen bu taxaw di volontaire di wax ci jigéenu milieu mhm. ñëpp naan ma da nga dëgër fit da nga capable mel leen non ñun dañoo baax am ay famille yu baax tey bu ñuy waxee fenn suñu yaay dégg ko wala tey ñu locomotive ñu def lu bon nekk ci meuble yi buñ ko génnee suñu yaay dañuy jooy ba amee cardiaque wala ñu amee AVC wala mooy loolu suñu yaay danaan ay nawleem la nekk ci koñ bi mhm. tey band yaa ngi nii tey ñoo xam ne ay ancien compte lañ génn jël di kaas seen i doléance mhm. di sensibiliser xale yu ndaw yi seen rakk yu góor yi mhm. ma ne man di ko quoi pas man ma jóg woddu sama sër takk sama tubéy ministre de la jeunesse gestuñu man may ànd ak ay nit di dugg wan ne ko ñun dañoo baax ñu boole ñu ci dëkk bi. est-ce que tey jii jigéen ñu nekk ci milieu yi dañuy marché di ñaxtu lan la ñuy wax ñi dañoo yabaate. Mhm. mais sàcc yi bu ñu demee bay marché ak agresseurs yi kon jigéen ñu nekk ci millier yi tamit war ñoo am lii wala ministre de la jeunesse woo ñu. recevoir ñu wax lu ñu metti wala mu xam tey lu bëri lan moo leen di dugal ci milieu foofu noonu ak lu ñuy jànkoonte foofu noonu fa laa bëgg ñëw sax est-ce que yow tey jii pare nga pour engagé wu xool ñenn ñi nga xam ne ñu ngi ci milieu bi pour partager ak ñoom loolu bu ko defee ngeen mën a def benn say xeex li nga xam ne moo leen metti pare naa je suis partant pare naa am na samay moroom yoo xam ne lii ba ma ko defee barki yàlla dañ cee kontaan te tey bu ma leen woowee dañuy ñëw hmm. nañu ministre bi rek recevoir wala mu geesuñu ñu bëri bëgg nañoo bàyyi guy gi. Mm-hmm. ñi jàng nañ yor seen i diplôme. Mm-hmm. man xam nga ñan laa ci gën a yërëm tey ñi seen parents yi nekk ci àll bi xamuñu li ñuy liggéey fii mais tabaski ba tabaski dañuy dugg oto mam fees. Mm-hmm. wàcce lépp xottil waa kër ga yëpp ñu leen sant di leen gërëm di leen ñaanal te xamuñu ci anam bi ñuy amee. Hmm. ministre bi nañu gees ni muy recevoir ñu fële jéel yeeg yi wëg lii man maay seul jigéen bu taxaw di kaasal jigéenu milieu te sama combat dama koy continuer dina metti naa ci dégg lu nekk yoon bi naa ci wéet mais garaawut man maa taxaw xam nga tey nit mun na jóge fële ne day taxawu jigéen yi nekk ci milieu bi te xamul gis nit booy taxawul tey jigéen yi nekk ci milieu yow na fekk yow nga jaar milieu dund ko xam ko hmm. xam la muy saf xam la nga ca doon jànkonteel ak la ca nekk xam bërëb yi xam endroit yi ñuy dem di leen seppi ak fi leen di fekk moo tax man ma volontaire moo tax à chaque fois bu may conseil wala di joxe kii day fekk man ma dund ko man dama wane ni dama ko dund personnel xam nga tey ma taxawee fii di wax kenn du ne ndiku day duul day fen ñëpp xam nañ ma ci milieu moo tax ma ne man soxlaa ma ay buzz TikTok man nit ñi xam nañ ma ba pare te du TikTok kon fu ma taxaw di wax dinañ ne bu ma nee lii wëg lii def naa ko dañ naan dëgg la dugal na fa loxoom ndax nekkoon na fa dund na ko. ministre bi suñu genre yi la war a recevoir. ñun ñu wax ko lii xew. Mhm. ñun ñoo xam. Mhm. ndax ñoo fa daan dem di toog. Mhm. donc mu ngi noonu ñu ngi woo ki nga xamante ne mooy Pape Malick Ndour xam naa bu ko seetaanee dina leen war recevoir leen. parce que tamit yombul li mu wax jigéen. ñu bari dañ daan dund milieu sax mais dañ koy nëbbu. Mm. mais c'est la première fois nga gis benn jigéen boo xamante dund na taxaw ni man bàyyi naa mais bëgg naa jox loxo ñi nga xamante ne ñu ngi sama ginnaaw. bëgg naa jox loxo ñi nga xamante ne tamit ñu ngi ci pour ñëw donc ñu ngi woo ki nga xamante ne mooy Pape Malick Ndour mu ñëw. waaw volontaire. Mm-hmm. loolu kenn du ko xëcc ak man Sénégal ñëpp ma ko nangul. Mm-hmm. waaw ragal du ko wax tàppet du ko wax. Mm-hmm. nañu ministre bi recevoir rek. waaw. mais mais baba <laughs> kii sama cameraman moom moom laa jëm yëndiku moom. donc am na solo ah. mu am actualité boo xamante ne nag xew na démb. Euh, kii sunu frère ñu ngi koy nuyu baax a baax di ko masaw di ko ñaan yàlla. Mm. Euh, nattu yi nii yàlla sunu borom teggil ko ko mu di Ada Fass. Mm. ku ne gis na démb ak tey réseaux sociaux yi li fi wiripaane affaire ay moto ay affaire coow. Euh, yow bi nga ko yëgee automatiquement en tant que ku jege Ada Fass en tant que xaritam même bu dee benn fan seq ngeen ko jàmm ak salaam naka nga ko yëgee ak naka la la def. waa démb dama jóge Grand Théâtre dem Médina koñam rue rue 15. bi rue 15 angle Blaise Diagne dama ne tak benn xaritam wax ma ko ak benn copine am ne ma ndigu yëg nga Ada dañ ka jàpp yooyu ma ne ko non non yaa ma ko wax mu expliqué ba ma ko yëgee sama yaram bi yëpp a damm xam tamit neexul ci xol nit. muy naqar nëbbatuma sax parce que Sénégal ñëpp a xamoon sama digganteek moom ñu doon génn nekk ay copain copine man nit bu sësee ci man ma dégg ne am nga natt au fond de mon cœur daf may metti daf may touché ba ma ko yëgee sama yaram yëpp dafa mhm. sumbeeku mhm. mais li ma koy ñaanal natt bi yàlla na teggeeku ci kawam te incha allah naa uti permis seetu ko. Mhm. ndax parce que bu dee benn fan dund nañ ko bànneex. Mhm. bu dee ñaari fan tamit dund nañ ko naqar. Mhm. loolu sama devoir la ma ko seetu du ma gor. tey bi yàlla na teggee ko ci kawam. te ban message nga koy lancé. mais yàlla baax na rek man li ma doon wax rek buñ ma interviewé moo koy cax. naan ko yoon bi dina metti nanga nga ñeme jam-jami man xam naa Ada bu baax. mais yàlla baax na. Mhm. Mhm. <laughs> xam naa nag sa nangu jee sori vraiment dajee dajee dajee def kot. Mhm. donc am naa mbégte ci jàkkaarloog yow. am naa mbégte dalal la ngay sama xarit nag ndiis mu njool mi tey moom émission bi dafa sérieux quoi émission bi tey amul ay ay ndiis mu njool meek. ay mbaari tey dafa tubaabe amul ay mbaari gaami jégut biteelu jégut lañ sa jégu wax coon way waali tëggut <laughs> voilà dafa tubaabe dafa <laughs> classe mu ngi noonu ah dañ kaa cons mu <laughs> eh, sa kàddu gu mujj ak lan ngay tàggatoo waaw maa gërëm waa Géejawaay sama waa Gale waa Daaru Xan ak Asegna fii may yeewoo di nuyu waa saa rek sama gars yi ci jeel bi li ma booy temps yi di salanse waa PC Cap Manuel Koutal jeelu Kaffrine Gossas Cap Manuel ñëpp sébi maa ngi ñëpp di bége waat tamit mafia yëpp sañta bañ tri tri Syncop Free Life Zanzala Opine waa Pak Baye Moussa mafia yëpp daal maa ngi leen di bëggee askanu milieu boobu la booy di ree di salaas. mais ñoo ñëpp ci milieu la ñu nekk ah? di bëggee sama mafia bi may àndal tamit mafia kara kara bi jiital ci faat kara tuuti kara mama kara daba kara yaa ma gën a xam. yow nag xam naa ne ministre bu waree ànd ak pour recruter ñu ne ci milieu moom xam naa ne xam naa ne un mois lay def pour mën a recruter ñi nga wax. donc mu ngi noonu donc donc mais tey waa kii sama wax ji mbay ja xaw ma looloo ma neex rek ci wax. waaw boobu noonu waa du nuyu waa Mbaye Dia waa Puno waa Seywiile ak waa Escale. <laughs> maa leen di nuyu di leen sant. donc mu ngi noonu ah ñu leen di jaajëfal vraiment jigéen ju baax la. jigéen ju ju ju am ngor la jigéen ju am dignité la boo ko fekkee. fi mu dëkk waaw di nuyu Ndiago Diouf sama transitaire bi Ndiago Oro Maam Jaara di nuyu bébé Ama di nuyu Siteu sama papa bi yàlla min bu mag bi sama papa rek. saa su ne mu ne ma sama doom ji ku la bëgg ma bëgg la ku la bëgguma la maa ngi nii doomam mhm. papa tarkindaa yëpp maa ngi leen di bëgg wëcc papa DG sa taxawaay rafet na ci cag-cag yi sama papa gërëm na la waaw. donc mu ngi noonu ah ñu man xam naa ne mënatu maa wax sax su ma ndigg man li muy wax dafa maa dépassé quoi donc xam naa fi laa koy yemale rek di leen jox yeneen di daje ci suñu yeneen émission fii ci people vingt jërë ngeen jëf.